conseil constitutionnel dafa wax ne. Mhm. dama lay fàttali nag loo xam ne defoo si attention xam nga ñii ma tudd yëpp ne ñoo andi affaire bi conseil constitutionnel mooy groupe parlementaire Ayib Salim Daffé ak 38 groupe parlementaire Babacar Mbaye ak ñu mu àndal ak candidat yii ma wax seen tur. Mhm. Malick Gakou Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Cheikh ñoom ñëpp ñoom ñooy les demandeurs. Mhm. bu ñu nee les demandeurs ñoom ñëpp la boole wax. loolu mooy àtte les demandeurs ñoo ne demal si au fi fii def fii au fond nga mhm. xool sa suuf a suuf fa mhm. suuf a suuf mhm. ñu ne demandeur dañu wax ne nanu annuler loi beex décret bi wante tam si besoin est bu ko laajee olof lay làkk de si besoin est mooy bu ko laajee wala bu ko jaree ñu ajuster ajuster datu élection présidentielle yi boole si nag jour yi nga xam ne perte nañ ko. ci campagne bi. jour yi ñu perte si jour yi ñu perte rek si mhm. campagne bi. kon dañu war a dabu ay jour dañu war a da dàq élection yi moom dàq nañ ko le 25. Mhm. mais dañuy yokk délai yi pour jéem a dabu dabu dabu jouru campagne yi parce que pour wàññi jouru campagne yi. comme ni ma ko gisee léegi euh, Malick gàkku wax ko si maa ngi ko gis si internet wu kenn sama xale yi naam ñu def campagne yu jour jours il faut modifier le code électoral pour def loolu c'est ay modifier code électoral xañatu fi loi organique la modifier code électoral mooy nga envoyé ko conseil constitutionnel encore parce que si une loi organique kon fi jóge fii ba déwén